aka waw xol dama ni lii ku ko man sab xol la alquran naan moo gën a dëgër doj ay dëgg sab xol a gën a dëgër doj ku man lu mel nii yaakaar yii yépp xeli doomu aadama yi yépp xol yi yépp doole yi yépp ñaq yi yépp alal yi yépp nga dajale dun dugal sa poos dunde bàyyi leen ci galeer bàyyi leen ci musiba bàyyi leen ci yaakaar ju tas bàyyi leen ci ci ci ci ak wayadi bàyyi leen ci xayadi ak ñàkk goo xam ni tënaa tàqalikook ñoom yow yayoo nga gàcce gu gune gunu mel gàcce goo xam ni àddina jëpp ñoo koy fekkee ñépp teew nit jinne malayka lépp lu borom bi tabaraka wa taala bind dana teew ñu weer la ni gejj ne yow yaa sàcc alalu askan wi yow yaa roppat mbooloo mi alal juñ la dénk wóolu la ci pour nga liggéeyal leen yaa ci roppat lii nga yanu ko nga yanu ko nag yow di sakki-sakki di wëreelu ca bis bu bis bu rëy bu màgg boobu kenn ku ci ne di wër la nga xam ni moo koy xettale waaye yow yow ngay wër yow lu la xettaleeg yan bu diis boobu nga xam ni moom la la borom bi yar ngir confiance yi nga trahir yow mi ñu dénk alalu askan wi sama message bi de boo ko déggee xanaa war ngaa dellu gannaaw bu fekkee yaa ngi doon xalaat wala sa juróom-ñett fukki xel ak juróom-ñeent benn ba ma lay jox ci nga trahir peuple bi la wóolu ci projet yu ñu la dénk pour nga taxawal leen ko mbokk yi inondation bi xew ci sunu réew ndax jër te def taxaw seetlu balaa boobu ndax ñun ñun ñun sénégalais ñun xanaa mérité dund dund bu neex xanaa ñun mérité woon lu mu néew néew néew am benn dirigeant boo xam ni bu sincère la koo xamante ni ku ragal yàlla la ci li muy def koo xam ni sunu alal jiñ ko jox dana ko jaarale ci yoon suñu alal ji ñu jox dana ko def fiñ ko sant mu def ko wala boog lim ñu wax ne dana ko ci def xanaa loolu ñun mérité wuñ ko allahuma ya rab yàlla nag ñu wër wërsëgal kenn rek ku mel noonu ndax ñu wan ñu aw yoon mbokk yi xam nga lii ñuy dund tey suñuy mbokk sénégalais di ko dund ndox mu fees dell ci kër yi ak ci néeg yi ci mbedd yi ci gox yu fasantikoo ci réew mi ñii génn seeni kër dem ci àll bi mbaa ci école yi di toltalaan du wanag wu ñu sutur suturloo du néeg boo xam ne ca la ñuy dugg dallu du lu ñu lekk lu ñu xam lu neex ci seen xol am ñoo xam ni ñàkk pexe tax na ñu dëkk ak ndox mi nga xam ne ndox mi yam na leen ci waq mbaamu mu yéeg teewul ñu dëkk ndox mi ci seeni néeg seeni wanag seeni ëtt ak seeni couloir fépp fu ñu dugg ndox lay doon kër gi fees teel teewul ñu nekk ci biir parce que amuñu fu ñu jëm miskin amuñu fenn fu ñu jëm fenn fu ñu jëm amuñu ko lenn loolu la ñu amoon muy benn kott kot kott ñu yaakaar ni ci lañu waral a suturloo ñi ñu dénk réew mi wóolu leen ñu war leen a mën a ñoŋalal barab boobule def fa ay assainissement wala ñu fexe ba canaliser ko ci façon boo xamee ni lii di maanaam inondation am mbënd dana leen teggi waaye mbokk yi daa mel ni ñoom dañoo tëddoon di nelaw xam nga lu tolloog juróom ñaat téeméeri milliards ak lu teg buñ ne def nañ ko ci suuf ngir tàggale askan wi ak mbënd tawub ñetti fan ba tawub semaine boo xam ne dañ koy ñi xam sax taw nee nañ am na taw yu ko gën a fort ci boo boo ko comparé ak ñun ñi dëkk Touba wala ñi dëkk ca biir Saalum ak ya ca aju situation bi mel nii buñ nee la def nañ ci juróom ñatt téeméeri ak lu teg mbokk yi xel dafa mënta nangu loolu man de tuumaal naa ne kenn defu ko ci te liy dëggal tuuma ji dafa bari fan yi damay dégg ñu ne ñii ndaw yi réew mi ñenn ci ñoom dañoo demandé ne nañu woo mbooleem ministre jëwriñ joo xamee ni dénkoon nañ la ci lu mel nii ne la na nga toppatoo wàllu inondation bi juróom ñaar téeméeri milliards yooyu na nga ñëw ñu audité la enquête xool yow ana ci lan nga dugal juróom-ñaar téeméeri milliards ndax lépp dem na ci plan bi wala déet waaye daa mel ni dañoo aw ci yoonu gàntal boobule enquête ma wax ni xanaa aw mbooloo bu fekkee dañ laa dénk alal ne dañoo bëgg nga liggéeyal ñu nangam liggéey ba nga jaarale ko yoon maanaam def nga ko ba liggéey bi am réussite cent pour cent xanaa ma yaakaar ni boo paree sax li xel mën a nangu segam aw nit la ñoo la wóolu dénk la alal ja dama yaakaar ni da ngaa war a ñëw taajaat la laaj la ana fan ak fan nga def ci barab ban ak ban bu réussité laa wax de rawatina nag bu fekkee am na échec cent pour cent total nga xam ne amul dara loo ci réussite muy benn ñaareel bi am ay kàddu tuuma yu jóg ne juróom ñatt téeméeri milliards yi ak la ca teg xam ne juróom-ñaar téeméeri milliards ak juróom fukk ñi ne juróom-ñaar téeméeri milliards ak juróom benn fukk ak la ca teg ñu ne juróom benn fukki milliards ya kepp wala juróomi juróom juróom fukki milliards ak yu ci yu ci teg am na benn leader bu ko wax moom dong lañu def ci maanaam mbënd mi la ca des lépp mooy juróom-ñaar téeméeri milliare lépp ci poosi nit yu ñu xamut la la la dugg mbokk yi lii bu ñu woo wootee ab enquête xanaa nag bu fekkee bëgg nga lu leer bu fekkee bëgg nga lu jub bu fekkee yaa ngi woote maanaam soobur ak vertueuse xanaa danga lagg ñëw teew nag ñu audité la xool yow li nga def fu mu lu fa dëng ak lu ca jub waaye bu fekkee yow ku moom xar bi nga bàyyi buum gi ñu lay jiiñu ndëmb yeew nga yor tànkub liir di ko soccoo mbaa nga gàddu ko ci sam nopp mel ni ab ab socc boo yor sama waa bu boobaa bu xel teeyut damaa yàgg xel kay waxuma la teey sax waaye daa war a wàcc far benn yoon lii moom bu amee xel du teey waaye day wàccu benn yoon mu jeex tàkk mbaa mu gàll sax nag kon dafa jot ñi nga xam ni ñoom lañuy ñuy tuddee les dirigeants ñu dénk leen sunum réew wóolu leen ñu nawloo askan wi xam ni seeni nawle lañ seeni doomi deret lañ ak seeni doomi der ñoo bokk benn couleur bi ay africain lañ ñu nekk ay africain ay sénégalais lañ ñu nekk ay sénégalais ñun ñëpp boo moytuwul bu ñu toppee suñu maam benn maam lay doon bu fekkee dañ laa wóolu dénk la ça ne veut pas que ni yow yaa ñu gën ça ne veut que ni yow yaa ñu ëpp xam-xam wala yaa ñu ëpp xel wala yaa ñu gën a yeewu déedéet ëppoo ñu xel gënoo ñoo yeewu dafa fekk ne maanaam mbooloo mu ci ne faw ñu jël kenn jiital waaye dafa am yoo xam ne boo koy doxalee dañuy leer ne yow mii li ngay doxalee bu fekkee jub na it xel nanguwut ne lu jub la